Sénégal monsieur le ministre dëkk bu neex la dëkk bu neex la boo booy wër di tukki di nga xam ne Sénégal dëkk bu neex la xam nga neexaay bi mooy lan dañoo am jàmm neexaay bi mooy lan dañoo am liberté benn gouvernement tegut pression ci ko population am xelaatee leen nii waxee leen nii kenn def ko ñëpp a ngi libre comme neex nga wax Macky lu la neex te dara du ci fekk neexaay boobu dëgg-dëgg yàlla may na ko Sénégal su neexoon gouvernement ak dooleem boo ne Macky dañu ne loo koy tuddee la nga faa jógee di nga wax loo koy tuddee waaye am nañ liberté comme neex lu la neex nga jël télévision wax sa président de la république lu la neex te dara du la ci fekk lu dul nga dem tëdd nelaw reer waxtaan bu subaa nga waxtaanee te ko dara lu ci nekk loolu dëgg-dëgg réew mu neex la réew mu am jàmm la réew mu baax la yàlla buñ ko yàlla yàlla yàlla bu ko yàlla tas ci seen loxo yàlla bu yàlla dimbale ñu ko bugg a tas ñu tas ko yàlla bu ngeen ci yàlla dimbale parce que sénégalais la patriote la anam patriote boobu anam patriote mooy nga bëgg Sénégal peuple Sénégal nga bëgg ko patriote mooy jàmm Sénégal nga bëgg ko patriote mooy àndoo Sénégal nga bëgg ko patriote mooy dimbalante ci luy développé nit ñi ñu génn ci pauvreté àgg ci dara loo xam ne ñoo ko moomal seen bopp loolu lañ yaakaar ne mooy jikkoo patriote te tam noonu la war a mel waaye patriote rey leen lakk leen dóor leen xar xas leen saaga leen vraiment kenn xamul Sénégal yi boobu fu mu bàyyeekoo kenn xamul Sénégal boobu fu mu bàyyeekoo parce que du ñuul li nga wax fii ne taarix la tudd ko fii maam dëgg-dëgg taarix boobu doo ci gis euh, du jur lu mel noonu ñu ngi daje di ànd ci daje yu mel nii daje yu mel nii teranga la pour Sénégal teranga la pour Sénégal ndax jullit ñi fi daje ñëpp yàlla ngi dëxañ ci seen biir loo xam ne xamuñ ko ci yiw ci mbaax te ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla yiw ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla mbaax ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla dooleeku ci seen zahir ak seen baatin te amut kuy tàllal sa loxo jëmee ci yàlla ñaan ko lu dul yàlla defal na ko rawatina nag ñi nga xam ne ay xaasatullaahi lañ te am na ah, benn waaye dafa nekkoon di dogale nit ñi rek di sàcc seen alal lu bon lu nekk def na ko ci doomu aadama Uras Info. xibaar yi gaaw. te wóor. Uras Info l'info à temps réel. Uras Info. jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info.